asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu saddi lisaani nawir janaani saafi amaani wasit doraay sasota dayra liqutta mayra faltakfi jawr limadiraay anqis iyaali min dalaali wa bil alaali xalli siraay xini hitaaba xulli kitaaba wa xulli wataaba yaa siraay yaa xayr rabbi xayra mu rabbi taayib taqad bi baatati jaay salli wa sallim ala mutami wa kul yasin bilintaay jërë ngeen jëf noo ngi sant sëñ Tuubaa di ko gërëm di ko delloo dénk suñu bopp jébbal lépp di sant mboolem njabootu sëñ Touba gi tàmbalee ku ci sëñ Muntaxaa ak sëñ am Amsa mi moom bis bi ak magam yéeg rakkam yéeg ñi bokkal sëñ Touba ñëpp lan nu faarix bay na ahadin min rasulin daal la nekk ci aman rasul sant nañ leen gërëm leen ci seeni taxawaay bis biit sant nañ la ci ndax taxawal nga ci sa maam taxawaay bu rëy loolu yi sëñ maam sun Ibrahima ñaanal ne rabbana ablana min aswaajina wa suriyatina xuratan ayun wajalna li muttaqina imaaman nga xam ne daa ñaanan ak njabootam ak i sëtam doon ñu baax te daa bëggul sax ñu bokk ci yaafu si muttaqina imaaman muttaqina yi la bëgg ñu doon koo wajalna li muttaqina imaaman la waxoon sëñ mag bi ne wa ablana suriyatan tudiimu alhamala saaliya xadimu suriyatan tayyibatan tujaddidu nahjana bil mustafa tajtahidu sët yu baax yu yu aw ci yoon ba noppi di leeralaat yu yoonu ngirum yonante bi xam nga kookee mag moom yowoon ci alxuraan nga xam ne dañ naan ah, daa fa asaabool kibaru daa dem bay mag yàlla wërsëgale ko suryatan du afaaf nga xam ne teenam yam aman ak dër yaag tool yaag lépp daa mujj tàkk yéen ñii bokk leen ci loolee njabootu sëñ Tuubaa gii nii ngeen taxaw ci yoon wi nii ngeen di defaral sëñ bi yoon wi xam ne ne sët yañ doon tànn ngeen amal te jamono yi sëñ baara nekkee waxan naa ko dama ko ne loolu yi sëñ bi di waxante waam lanaa suryatan tuddima alhamala saaliya xadimu yéen a ngi ci ndax lam neewon walay sa yojubu siwadul sawadul jismi safaatul fatawu suwal fami isruba ma urifatul muwaqara ma xaaba aman xablu waasura fataldu khad yabdu amamal wabil wal fadlil wabilal tal yant bi ne falaata naasa ina nasmi tasdari naasa addisi ummati kalmatri taw mom do do ne lu jëkk la nga ci lay bax wala ci lu bon li ndax da wax ne fatalu khad yabdu du al wabli waaye wal fadli li waa bi laal ngëneel ab nawet dal mujj gu baax a cay baax nit it mujj gu baax koy defar wal xaaqibatu nag lil na nan jéem a sax ci jub sax ci taali bi alaji baara ba lool laa ko wax dama ko ne mag ñu jëkk ñu ku leen yoon bu doomi sëñ Tuubaa yi jeexee yoon wi du yàqu duñ ko gëm te loolu yi sëñ bi ne fa lay suñu jub sawaatul ji safaatul fatawa suwal fami ma ne ko fii ne manees na ko gëmee ci yow mii ak Barack Obama ndax maison balance bañ koy liggéey teenwaar taxut woon kon nag du Barack Obama baara ak Obama mu ma sàddaxta lolé nak batay moy dox ci yoonu seigne touba yi sëñ am sa mii dama ko ne am satu mañ leen tudde de mi ñu la tudde ñu tudde ko ko de lam dajan ca Badara xare ba lu mu fa def ci jeesee ki xeej defal nga seigne touba ci xasaay du ñu toll bo légee du lepp ndam bu damo lee nga damo li wa te te seigne bi dane xasidati faaxat xasaayidal kiram wali taqulu abadan xayral maram waxtu woné mi ngi ko yut li gën ci yi ñi sàkku te nee waxtu jànge mbaam bi ni isa katabtu aw kharatu jaa ilayma maa raja waxtu wu jàngee mbaa mu bind mbaa mu yorub téere donc lu jóge ci yàlla lu rëy dikk ci moom lu ko gën a dëgëral yaakaaram xam nga kon wala toxayib rajaa yi jee dañ na fee moom ku wér la diggam ak yàlla nan wér suñ digg ak sëñ bi dooni taalibe nangul ko bañ a doon taalibe yi dii nga seeni sëriñ ak di leen wër aka liñ kaar aka seet bis bu taalibe di seet sëriñam ba xam jub naam déet daal kuy seet taalibe bu dëggal boobee bis booy contrôler doo ko ci fekk sun yoon nekkul ci suñ doxini sëriñ yi nan seet nin war a def waaye bëgg a dëkk ci dëkk ci rasaayaay ba noppi jot ci masaayaay ta nekk fokk lu man sàmm ani rasaayaay li fooy na yeftar bil bil falaay di dëkk ci masa rasaayaay jot ci masaayaay mëneesu ko sëñ bi mën na nangam àttan na ko fii mu ne kilo bi dem àll diisut kenn waaye kenn du ko yen koo wekk nan fexe bay seetal derb sëñ Tuubaa bi di seetal suñ jëm yi di wax lu nu war a wax di def lu nu war a def sax ci taalibe akuk jub yonte yàlla Muusaa kàllaama lay loon day dem bay wax ak yàlla nga xam ne Jibril musu ko ne yàlla nee na moo daan wax yàlla direct te làqat yoon sax ba dugalaat kenn soppi ko yonent muy aaroon na rakkam te dem na ba ba ko suñ borom di boole xular jàngalu ko yonent ak taalibe la ko doon wutloo ak taalibe nag moom la fi Sëriñ Tuubaa indi moom la fi Cheikh Ibra nekke woon Cheikh Ibra ne ab ab sëriñ doo ko jox danga koy jox te di ko laaj te bu ko jox bu ko laaj ñu ne ko loolu nuñ koy def mu ne ko da koy jox sa alal di ko ndigal te bu ko jox bu ko jox bu ko jox ndigal bu ko laaj alal te ba bañ koy euh, sare ak aqiqa foofu nga koy xàmme ndax aqiqa mooy fasalu ahli sikri in kuntum la tahlamun moy sharia ak xak moo fala tasalni an sayin ata di sulak min minu sikra bu laaj dara te luma la wax nang ci nan japp lool sun digg seigne touba jërë ngeen jëf waaw bi dama ko ne daaw seigne muntaha seigne muntaha daje won nan fi ci ci yef yi muy doxaluk talibem nangu nangu ndigal bamuy jox addi seigne bara da la daaw bañuy bëgg magal nak seigne bi ne bu safar téro na dem ca su ngeen fekk ko ñi jàng fay xasaayit fanaan fa ba suba laa leen ni ni nguur di def de sëñ bii de xawma seen biir waaye daa mel ne passation de service lañ doon def te loolu ma doon wax yàlla def na ko passation de service sëñ Muntaxa da ko doon joxaat sëñ sëñ Abdou sëñ Cheikh Mati lay da ko doon jox sëñ Muntaxa yoonu yoonu sëñ Touba waxtu wu ne dana seet ku ko mën a yor mu teg ko ci say loxo dama leen ne nun taalib yi neen dëggal dëggal doo ngay leen dese mooy mooy leen war itam te santaan def ko Cheikh Ibra da ne woon ab taalibe bu sëñ bàmba meree nan naaj bu soxlaa nu ñaq mooy dëgg joxe sunu ñaq am ñaq dee su ko moom ci jëw jàmbur li sëñ bi santaan nañ ciy denc nañ ciy sax waaye denc lu bari ba noppi fab lu tuuti jox sëñ bi damaa daje woon ak waa joo xam ne day wër jumaa ji ne dañ koo tafu 2 million ma ne ko loo loo teg ci barab bi mu ne ma ñaari téeméer ma ne ko ñaari téeméer booy suñ booy dugal fii suñ tubaa ñaari millions yokku na woon a jox loo ko fa yóbbu nan sax ci taali bi sax ci jub toj suñ xol yi nangoo jox suñ tubaa addi شيخ ابن دلال على لي سنتو باي لا تخلو وجه دار واي فو على لي نيت نيك اب خولم نفي تي يلا سوخلا خول يلا سوخلا الا من اتى على بخلب سليم اك قلب خلب مطمئنه يوي يي لا سنج لا سنج بي سوخلا دا بغا ديفار خول لي موتاخ مودي لا علي ندخ في ني دك بو ديغ نا لكنا بانك با على ني موم داغا لاج با خام ايغ دير نا سنج توبا دي سون بانك جيرغين